lycée bilingue Berkeley moo leen di may seen émission li xew ci biir internet bonjour merci de nous rejoindre chers téléspectateurs jaajëfal nañ leen ci heure bu baax bi miin ngeen heure bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram jaajëfal bu baax euh, rédaction bu télévision Futur Média mi leen doon dégtal xibaar yi ki ko doon def di Cheikh Diop ànd ceeg euh, rédaction bi jaajëfal leen yéen internautes yi maire yi paa yi nga xam ne miin nañu heure bu baax bi nga xam ni a chaque fois à partir de 13h30 il est exactement 13h39 minutes tey la mercredi 8 septembre 2021 tey nag. Euh, dañu yeewoo ak xibaar bu tiis boo xam ni kii miin ngeen ko euh, ci yeneen télé yi la certes du sénégalais camerounais la waaye amoon bari woon na tànk lool fii ci Sénégal jabaram léegi lañu ko Fatim Ow doon wax ci journal bi ne jabaram sénégalaise la woon moom Alain Amobé Mévégué mi nga xamante ni miin ngeen kanamam bu baax génn àddina tey ci suba euh, amoon 53 ans actuellement nii ci réseau sociaux yi moo nekk xibaar bi ñuy gën a partagé depuis bi ñu jotee nouvelle bi ay liggéey nañu ak moom ci diggante RFI France 24 ba actuellement ni mu yoroon euh, mbiru boppam moom euh, Camerounais bii nga xamante ni yàgg naa euh, liggéey pour Afrique yàgg naa liggéey pour nit ku ñuul mais surtout ñi nga xamante ne dañu tàmbali défendre cause africain moo tax euh, gis ngeen tweet bi euh, kii di président euh, Youssou Ndour mën nañ ko duppee noonu moom mi nga xamante ne kenn dootu ko présenté aussi mais surtout compte Twitter bi nga xamante ne gis nañ ñi aussi actif na lool ay réaction boo xam ne def na ko ci génn àddina kii di Alain Amobé Mébégué e mi nga xamante ni goro la ko daan woowee comme ni ngeen koy liiree ci tweet bi wax na ni panafricain convaincu koo xamante ni ku yàgg défendre cause nit ku ñuul taxaw bu baax Afrique euh, moo génn àddina koo xam ni sori woon na lool ci seen relation ci digganteem euh, ñoom ñaar ni ñu doon euh, liggéey surtout moom ci liggéeyam journaliste culturel bi mu doon moom Alain Amobé Mévégué gis ngeen tweet boobu ñëpp a ngi koy partagé waaye tamit ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi jàllale ak sa njàll ci génn àddina kii di Alain Amobé Mévégué mi nga xamante ni toll woon na ci 53 ans waaye surtout nekkoon Camerounais waaye panafricain ndaxte nationalité gi amatul woon solo da doon bu baax cause euh, africaine yal na ko yàlla xare àjjana en tout cas ci réseaux sociaux yi ci subaak léegi hashtag bi rest in peace la mën nañ ko duppee noonu euh, RIP euh, Amobe mi nga xamante ni ñëpp a ngi koy partagé jaajëfal nañ leen yéen internet yi bu leen fàtte ni yéen a ñuy suivre aussi ci suñu plateforme yëpp Facebook live YouTube live Instagram live ma xool ubbi sama con euh, live Facebook bi nga xam ni baaxoo naa ci di gis seen ay commentaires lépp luy euh, seen hashtag yi sunu net Facebook Twitter Instagram dañ koy gis euh, gis ngeen IGFM mooy www.igfm.sn min ngeen site information bu groupe Futur Média sax ak surtout léegi dañ ko defaraatee ba mu gën a yemb gis ngeen ni léegi vraiment macha allah dugg ci dafa yomb tàppe ci dafa yomb am information yu wér te foofu rek ngeen ko mën a amee li ci gën a fees nag ci mbirum waaw démb ak tey mi ngi ci loxo yoon ci ay euh, vidéo yoo nga xamante ni partagé woon nañ ko fi wala ay audio yoo xam ne jàllale woon nañ ko fi ñëwoon nañ ci tamit ñun ci xibaar yooyu doon leen wax léegi fii àddina toll ak technologie yi de l'information de la communication réseaux sociaux yi internet yi euh, yu bari léegi euh, moo koy sooxee gis ngeen lii nattu bi dal kii di kilifa nekk artiste ci yooyu la soso moo tax it toujours rek ñu ñuy bàyyi xel bu baax naka la ñuy jëfandikoo internet yeeg réseaux sociaux yi loolu bokk na ci xibaar bi gën a fës actuellement ci site d'information yu Sénégal gi yëpp euh, loolu la réseaux sociaux ak internet ñoo ànd moo tax yéen internet yi seen commentaire yëpp dañ koy gis nag ñu ngi nii jàkkaarloo ak yéen ubbi naa live bi en même temps damay ubbiwaat beneen live jàkkaarloog live euh, YouTube bi YouTube live jaajëfal équipe digitale bi di xaar li ngeen ñëpp ngeen dugg si màggalu Touba gaa ngi noonu ñu ngi koy annoncé euh, démb ba léegi gannaaw ba weer bi feeñee le vingt 26 lañ ko jàpp. Euh, le 28 septembre bi ñu jëm yal na ci yàlla yóbbu ci jàmm muy 18 safar ñëpp di ko waaj murit yëpp a ngi koy waaj Sénégal gi yëpp mën nañu wax wala àddina gi yëpp a koy waaj màggaluk Touba gi yal na yàlla may ñu yóbbu ko ci ñu ñu yegg ci ci jàmm lu am solo la. waaye tamit surtout télévision Futurs Médias mi nga xamante ni saa yu màggal jotee dinañ ciy dégtal lu am solo yooyu yéen a koy xaar kii nag moom internet moo tax mu toll fi mu toll grâce à internet moo tax euh, mu yegg si fi mu yegg si macha allah moom xabi laam xaban laam mais xabi laam euh, lañ koy wax moom euh, mi nga xamante ni fii la bàyyee ci Sénégal dëkk fële ca Italie euh, am 21 ans ñu gën ko ràññee actuellement ci réseaux sociaux yi mais surtout ak TikTok bi nga xam ne du wax waaye ay vidéo wër na àddina chaque jour nag gis nga mi ngi gën di grimper maanaam di gën di yéeg ñu koy wane boppam bu baax grâce à internet. Euh, fi mu demoon démb nag ca benn festival bu mag bu am ca Venise Mostra Venise ca la demoon yéeg ca tapis rouge ba yombul ñu koy gis wala yombul lu muy am moom 21 ans rek mois de mars bii rek passé rek la ubbi kontam gannaaw euh, période Covid bi ak euh, bi nga xam ne liggéeyatul mu am amoon temps am inspiration créer compte. TikTok di ci def lu doy waar lim dul wax nag li benn internet wax ne wërsëg mi ngi ci ba ubbi sa compte TikTok te doo wax moo tax wërsëgam toll foofu waaye li tax mu muy bañ a wax nag moo tax fi mu naan mu international ba actuellement sur euh, TikTok plus de cent millions de personnes ñoo koy suivre partout dans le monde ba actuellement nii ay yeneen i projet mi ngi juddu ci euh, digganteem ak euh, yeneen médias yu mag yi wala plateforme yu mag yi ngir ñu mën a liggéey ak moom moom Xabilaam mi ngi noonu en tout cas ñu koy souhaiter bonne chance euh, sénégalais la mais surtout suñu fierté la téléphone portable nag léegi suñu relation comme ni ko benn internet waxee léegi dafa dafa doy waar gis nga ko nii picc yi ñu daan dugal ci kaaf yi sax léegi ñoom ñoo ñu ko ëpp liberté ndax suñu téléphone portable image yi nag internet yaa ñu ko partagé ma gis ni am na solo ñu nit comme que ci émission bi c'est interactive lépp lu ñu fi jàllale yéen yéen ñu ko euh, partagé ñu nit ñu daal di koy jàllale wan leen image yu euh, balaa ñoo ñëw ci son Youssou Ndour bi effectivement ñu ngi koy préparé ci ginnaaw euh, réalisateur connecté balaa ñoo ñëw ci son Youssou Ndour wan leen image bi waat voilà gis nga ko xool leen bu baax yéen yéen a mën ngeen ci commentaire ah joxe ci seen seen xalaat léegi suñu relation ñun ak suñu téléphone portable yi waaw chaque jour dafa doy waar gis ngeen ko waaw léegi dafa dem mel ni réseaux sociaux dafa nekk ci ñun da ngay nekk ci même kër sax pa pa beeg maire beeg léegi kenn waxtaanatul ñëpp a ngi sëgg ci sa téléphone ñun ñëpp a mujj amee su ne ni loos ñëpp a ngi sëgg def nii suñu relation fi jamono toll na moo tax Youssou Ndour pourtant woyoon na ko bu yàgg ci suñu relation ak téléphone moo tax euh, démb deux heures de temps sans sa téléphone portable daf ñu ci commentaire mën na am ñu choisir la tey balaa ñoo dugg sax ci question yi mais euh, déglu ngeen parole yi dem ba tey maa ngi ko gis ci tiktok bi ñëpp di partagé way Youssou Ndour naan lu xew nekkete gars yi daal xam naa ñoo dem ba sës fi mu ne ni xool suñu relation ak téléphone te pourtant lii y a de cela très longtemps je pense entre 2007 8 si je me clip bi naa ko xoolaat ci YouTube bi xam nga grâce à YouTube mën nga xam kañ la euh, vidéo bi dugg dañ ko xoolaat jox leen ko mais gis naa ne daal fi mu ne nii Youssou Ndour waxoon na lépp ko suñu relation ak suñu téléphone portable tax na ñu bàyyi lu bari waxtaanee tu ñoom bàyyi waxtaan ci yow maire yi moo tax paa bari ak maire yi dañ naan ñu sa émission bi dañ koy suivre ndaxte ça nous permet ñun tamit ñu gën a xam ndaxte dañuy gis lépp rek di jàll ci internet bi du ñu xam lan moo wér lan wérul lan mooy bu baax bi lan mooy information bu bon bi waaye grâce à li xew ci biir internet bi di tax dina tax ñu xam lu bari moo tax ci lañuy ñuy profité jaajëfal bu baax suñu euh, ñi nga xamante ni ñooy suñu sponsor yi rawatina euh, ji li CSB mais dañ ciy jiite ak kii di lycée bilingue Berkeley bi nga xamante ni lycée bi euh, lycée de référence la fi mu ne sixième ba terminal am leen possibilité di fa former xale yi ci mbirum robotique mbirum intelligence artificielle xale yi nga xam ne léegi dañu xarañ ñi ngi doon wax léegi waxi téléphone portable application web dañ ko fay former xale yi nga xam ni macha allah am nañu xam-xam xarañte ci seen euh, ci mbiru internet yeeg technologie dañ lycée bi dañ ko fay dañ ko fay former donc am ngeen possibilité yéen parents yi yéen ñu ñuy suivre ngeen bàyyi xel lycée bi am possibilité numéro téléphone bi ngeen wooteefal fa laajte ay information wala yóbbu fa seen ay doom ndaxte lii euh, lycée bu euh, am qualité la mais surtout de référence la fi mu ne nii jaajëfal leen ñoom ci kóolute gi ni ñu fa yéene ànd ak ñoom weer bi yëpp ngir gën a wane seen ay euh, baax baax mën nañ ko waxee noonu mais surtout mi ngi noonu 77 jaajëfalit jili CSB rond point cité kër góor gi euh, lépp loo xam dañ ko fi maye fii ci plateau bi yii jili moo ko fi joxee mu ngi nii boutique bu mag baa ngee rond point kër góor gi am na yeneen i boutique yu nekk euh, diggante kolobaan ak euh, Gueule Tapée mi ngi nii yëpp pour internautes yi la ñuy xool quelques commentaires ci saa si Euh, surtout question yi ñu fi posé daal di koy jox internautes yi may leen ko gratuitement saa su ne yéen a ngi gis à chaque fois après émission bi ay internautes yi nga xam ni ñoom la ñu choisir dañuy ñëw fii ci plateau bi wala ci kër gi jël seen aylo ñu foto leen partagé ji li aussi day maye ay lot téléphone portable 33 la 822 47 00 am na image cachée bu ñu fi bàyyi woon démb xàmmee ngeen euh, wala ñu ko trouvé bari nañu Alpha Condé mi nga xamante ni dimanche bi lañ ko jëlee ci nguuram Euh, nekkoon euh, njiitu réew mu Guinée moom lañ leen doon def ndaxte actualité oblige xam ngeen dafa jot a xew ñëwoon nañ fi ak ay images yi diggante lundi beeg mardi bi la xew ci Guinée en temps réel ndax euh, grâce à internet ndaxte image yi nga xamante ne lañ fa njëkk a am ci internet la daal di waddee fi àddina toll ak jamono toll moo taxoon dara rëccu leen ndax la xewoon fële ci Guinée moo tax it ci la ñuy xalaataale waa suñu. Euh, mbokk yi nekk Guinée euh, Guinée Sénégal bari na Guinée yi fi ba ñi fi wàññi bari nañu ëpp nañu wala jege nañu 3 millions de Guinéens fii ci Sénégal donc Sénégal ak Guinée benn lañ ko am na solo wanaat leen euh, jeu bi ndax triangle yi tamit gars yi ci lañuy ñuy profité ah ñoom paa yi nii damay bañ a tooñ ñoom ñoom ton Saint-Louis Mané quoi grand bi ci jeu yi la ñuy ñëw daal di profité naan la non mais Ndiaye dama bëgg ci loo yi wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi mais lii yomb na nag Youssou ah actualité bi yow daal yow lañ jagleel image cachée yi rek parfois nga def mu metti parfois nga def lu yomb jaajëfal naa la ak réalisateur connecté bi kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram euh, maa ngi gis commentaire maman Lo Fatima Bintu Rasoul euh, Binta Ndiaye Amadou Sok falu Mbengaan Khadijatu Diouf et puis fépp foo leen ñuy suivre ñi ngi jot xibaar yi ñii di xalaat ñu nekk ci hôpitaux yi jot nañu message yëpp ñu nekk ci hôpitaux yi di leen xalaat yal na yàlla fëgg seen bopp ñu nekk ci prison yi aussi ndaxte ñu ci euh, xel bu baax émission bi jaajëfal nañu leen te yal yàlla génne leen ci jafe-jafe yi xat-xat yi ngeen nekk noonu euh, ngeen delluwaat ci seen njaboot euh, bañ a defati lu ñu leen fay yóbbu jaajëfal di leen xalaat bu baax a baax ñu ngi jot message yëpp xam nga télévision Futurs Médias mi ngi partout rawatina sénégalais yi nekk Mauritanie États-Unis aussi diaspora bi yëpp mën nañ ko wax noonu France partout fu sénégalais nekk ñi ngi leen di jaajëfal wax leen ñu ñaata triangle ngeen gis noonu après ngeen continuer ci commentaire joxe seen euh, réponse ak hashtag bi di sunu net Facebook Twitter wala Instagram. Guinée boobu ñu nekkoon sànq fa ñuy dellu ndaxte image Kouthia bii xam ngeen Kouthia duñ leen ko présenté wër na àddina. ñëpp ko doon partagé démb ci statut whatsapp yi facebook yi twitter yi ndaxte euh, ni mu retracé waatee euh, jàppook wala mën nañu wax ni teggi nguuru kii di Alpha Condé ci euh, manière am comme ni mu ko waxee moom Kouthia célèbre humoriste boo xam ni duñ leen ko présenté ci talent mais surtout ci ni mu nekkee ko ci xolu sénégalais yi yàlla na yàlla guddal fanam mais lii am na solo image bi ñëpp nga ko doon partagé d'ailleurs ñun moom moo nekk suñu image du jour jaajëf am na solo. Pierre Da Silva réalisateur connecté dañuy delluwaat toujours Guinée vidéo bii nga xamante ne ca télévision ba la mais lii dañuy préciser que nii gis naa ni ci internet bi ñëpp dañu doon dañuy ŋàññ ñi président bi ne euh, dafa mën nañ wax ni ñàkk teggin imam bi vidéo bi ñu bàyyi leen ñu seetaan ko après ñu ñëw expliquer expliquer leen euh, li nga xamante ne mooy gis nañ nii ñëpp a ngi koy partagé ci réseau sociaux yi TikTok la Facebook Twitter ñenn ñi sax dem nañ ba ni vidéo bi moo tax mu euh, ñàkk nguur gi Si elle a pagaille, tu es responsable. Si ça va, tu es responsable. Donc, Ninka Messini, prenez le discours là. Il est responsable. Il va la mettre. Il Si elle a voilà mi ngi noonu euh, vidéo bi ñëpp a ngi koy partagé ñenn ñi dañu dem ba ni sax lii moo tax ñàkk warmal imam bi la mais je pense que ñi ci ëpp ci commentaire ci yenn guinéen yi donc dañuy sukkandiku ci commentaire yi ñun wax nañ leen ne boo leen di sukkandiku d' abord ci commentaire yi vidéo bi lu am la oui mais yaakaaruñ ne dafa doon xotti warma mais c' est juste euh, la woon voilà ñu ci ëpp loolu lañ doon loolu la ñu joxe ci ay explication mais c'est juste ñun tamit ñu jaaraat ci waxaat ne ay euh, tooñante la woon donc du woon li ñëpp xalaatoon voilà ñu gis ni ñi nga xamante ni ñoo def putsch bi ki ko jiite jiite di monsieur Doumbouya Mamadi mi nga xamante ni gis nañ ni ñoom dañu am communication bu digital ci diggante li fa jot a xew dimanche gis nañ ni ñi ngi am taxawaay ci temps bu gàtt wala ci diir bu gàtt gis nañ ni am nañ taxawaay bu am solo ñoom ci réseaux sociaux yi depuis bi ñuy préparé ak euh, bi nga fi nga xamante ne fa la yëf yi toll ñoom c'est CNRD bu Guinée mooy ñi nga xamante ni ki leen jiite di euh, force bi nga xamante ni ki leen jiite di euh, Mamadi Doumbouya mi nga xamante ni actuellement ni moo fa def poste surtout seen taxawaay ci réseaux sociaux yi am na solo moo tax d'ailleurs seen euh, gannaaw ba ñu defee euh, ba ñu teggee Alpha ci nguur gi déclaration bi njëkk def ci WhatsApp la wër ñu euh, dellu ci image yi nga xamante ni ñëw nañ ci lëndi waaye bërki démb wala démb posé nañ ko question di ko laaj fan la situation bi toll lii moo nekk tontoom. Juste une question, Monsieur le Président. Bonjour, juste une question. 48 heures après la prise de pouvoir, aujourd'hui, quelle est la situation? situation est sous contrôle et le travail continue. On a beaucoup de choses à faire, donc on va éviter de parler beaucoup et de travailler plus maintenant. D'accord. À quand? mi ngi noonu euh, looloo xew ci Guinée euh, ay vidéo la yu ñuy partagé ñu nit dañuy ñëw expliquer leen ngir euh, ngeen gën a comprendre li xew ci internet bi information yi day bari à la limite da am li ñu duppee infobésité maanaam trop d'information doo xam lan la naka la demee moo tax ci subaak léegi gisoo ba ma fi ñëwee ba léegi maa wax rek ay information rek la waaye dañ leen ci gindi pour muy gën a leer lii application la boo xamante ni alarme la ñiy fexe ñu bañ a sàcc sa téléphone maanaam boo ko branché teg fenn wala nga teg fenn am na benn application boo xam ne keneen ku laal sa téléphone ku dul yow day sone day alar day sonné alarme di yuuxu bu baax loolu nag dina am solo Pierre bu ma wax ne ma non pour bu ma tegee sama téléphone <laughs> si dem sangu ji sama jabar bu ko laal man sàcc laa wax sàcc <laughs> am na solo euh, application bii ngeen di gis mi ngi tudd. Euh, don't touch à mon phone loolu la tudd wala ne touchez pas à téléphone boo demee ci Android téléchargé ko am nga possibilité téléchargé ko nga dem ci iOS am nga possibilité téléchargé ko kon ni ngeen koy gisee nii ñi ngeen ni muy ni muy ni muy sonné bu fekkee boo téléchargé application bi mu nekk sa téléphone bi nga xamante ni mooy App Store donc ñu bind ne touchez pas à téléphone portable application buy génn donc moom la nga téléchargé ko boo ko téléchargé nga def ouvrir boo defee ouvrir nii lay ñëwee boo defee start donc voilà bu publicité yi jàll boo ko tegee donc yow yaay configurer li nga xamante ni moom mooy sa code donc boo ko tegee nit bu ko déplacer rek automatiquement. alors ñu def ouvrir ñu defee ouvrir donc là touch my loading cest à muy chargé wu donc on attend première mmh. donc c'est simple nga jàppale li nga xamante ni moom mooy tuto bi. donc soo paree nga jàll publicité bi parce que comme c'est gratuit souvent ñoom nii la ñuy récupérer démarrer donc quand c'est activé voilà. sama benn grand moom message léegi ne ma application bi baax na de su mais pour sàcc nag man laa wax. bu leen ci defaale xalaataale leneen pour sàcc euh, maanaam ñi nga xamante ne da ngay teg fenn sa téléphone mën nga ci def boo ko activé mi ngi noonu wax nañ leen noo leen koy télécharger don't touch my phone wala euh, ne euh, touchez pas mon téléphone. problème insécurité yi tamit bari na ci réew mi fi mu ne image yaa ngi wër fu ne surtout ci image vidéo de surveillance yi ñu ngi koy partager ci réseaux sociaux yi di gën a alerter ndaxte ñun tamit dañuy alerte ah. nit ñi ñuy bàyyi xel euh, ci mbirum insécurité bi fi mu ne nii ci réew mi nga yorul koppar def ci sa oto wala nga ak yeneen ak yeneen situation yu ni mel ñu alerte waat euh, sénégalais yi ñu gën a moytu ndaxte doy na waar am na yeneen stratégie sax yoo xam ne gars yi def ko tu ñaawteef yii euh, moom la ñu jël comme ni ngeen koy gisee nii je pense bu ñu amee temps mën nañ ko seetaan vite fait ñu expliqué waat leen jàlloon na fi sax mais dañ leen di gën a rek ngeen gën a moytu. yéen a ngi may boo xamante ne. otoom bi la gaare ci ci banque bi gis ngeen lii yeneen gis lii yeneen gis lii pont bi fii lañ ko samp fii dañ ko samp fii ci suuf si suuf nii lañ ko samp oto bi arrière mu crevé mu dem ba ci yoon bi ba mu demee ba ci yoon bi oto bi taxaw pono bi peer gars yi yi jël oto bi ubbi ko génnee génne li ci nekk neen sóoraale lool borom oto yi yéen laay waxal na ngeen bàyyi xel lii lii des nag waaw vigilance rek ñu moytu baax na yi tamit ñun ñuy alerter waaye surtout vidéo yi ngeen def am na solo wax nañ ko émission bi li gën a euh, fes ci émission bi mooy yéen a ñuy partager li nga xamante ni ko fi jàllale te lu am solo la balaa ñoo jàll ci lii ñu jàll ci action citoyenne donte euh, ñun li ñuy gën di fesal mooy seen quartier boo leen ci def ay action yoo xamante ni euh, ñun dañ koy partagé waaye am na yenn internet yu ñu alerte lii rond point cité kër góor gi la situation bi ñu mel ñëpp a koy wax am na ku ñu alerté jox ñu vidéo bi nañu lii war ngeen cee wax autorité yi bàyyi ci xel euh, lu doy waar la rond point cité kër góor gi ñëpp koy dund mamel aussi yu euh, ni mel la ñuy dund waaw ah, ci yoon yoo xamante ne doy na waar surtout ci période nawet bi donte ñun tamit euh, baaxoo nañu saa su ne boo leen nekkee ci quartier yi jeunes yi ci région yi di góor góor dimanche bu nekk di seetal seen koñ dañ koy partage waaye bu koñ bi doyee waar tamit envoyé leen ñu photo yi comme ni ko internet yi defee ak hashtag bii di sunu net Facebook Twitter wala Instagram fii mamel la <coughs> moo nekk nii bàl leen ma mamel gi moom dafa compliqué ci noo duggee noonu ci biir mamel quoi dem ay makki yu fay euh, arrêt yoonu arrêt euh, p set bi comme ni ñu koy waxee yoon bu compliqué la bari na ci aussi yéen ci euh, seen quartier yi wala seen région yi zone yi ñuy dund yu ni mel envoyé leen ñu photo yi ñu dinañ ko jàllale autorité yi di di ci bàyyi xel am na solo rond-point cité Keur Gorgui tamit situation bi compliqué na lool commentaire yaa ngi noonu yéen ñëpp gi nañu seen commentaires yi équipe digitale baa ngi ci ginnaaw mën nañ choisir ñaar ñu ñëw jël si seen ay loo fii ñenn ñi dem ci jili CSB jaajëfal nañ leen kii ne Mamadou Momé Ndiaye lay toppandoo xanaa ci noonu sax ñun ci lañ leen di tàggatoo jox leen euh, dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet moo nar a nekk dernier numéro de la semaine ñun xam nga ñu ngi fi lundi ba jeudi am na ñu naan temps bi dafa gàtt waaye nii la comme internet temps record 20 minutes yoo xamante ni ñu jox leen xibaar yi wér te ci beneen alam ndaxte gannaaw ba euh, xibaar yi nga xamante ni rédaction bu télévision Futurs Médias moo leen koy dégtal bis bu ne saa yu jeexee ñun à partir de 13h30 ñu ñëw li gën a fës ci internet bi alerter leen euh, sensibiliser leen informer leen mais surtout ni ñuy jëfandikoo internet ak réseaux sociaux jamono moo ni toll. wala fi jamono toll moo ni moo ni moo ni mel donc il faut ñuy gën a alerter surtout mag ñeek euh, kilifa yi nga xam ne ñu ngi suivre heure bi di waajal julli wala añ tiim ci boolu añ bi surtout njóobeen yi baax na yi tamit ñu gën a xam lan mooy xibaar yi nga xam ne ñoo gën a fees jaajëfal bu baax suñu sponsor yi lycée Berkeley duñ ko fàttee numéro téléphone baa ngi noonu di défilé xoolal internet bi li ma wax sama photo la jël de nee mënul bàyyi émission bi moom ndax du bàyyi émission bi ndax day tardé añ saa su ne gis naa commentaire bi te yàggul léegi rek la jaajëfal bu baax bi lycée Berkeley numéro téléphone baa ngi noonu woote leen ci ngeen am ci ay xibaar yu wér te wóor pour seen ay doom fi jamono toll am na mën nañ leen a former ci mbirum robotique application web sixième ba terminal am na solo gis nga ko noonu drone boobu lu am solo la surtout fi jamono toll jaajëfal nañ leen jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi. officiels anglais et français, le lycée Berkeley offre même la possibilité à ses futures élites de faire des stages linguistiques en Allemagne et aux États-Unis. Test d'entrée obligatoire à partir de la cinquième. savons que votre Internet doit être rapide et fiable. C'est pourquoi nous vous offrons le haut avec notre réseau 3G+. RFM